sonn na damay toog. Hmm. toog moom mënut a ñàkk si àdduna. il faut nit ñi toog. parce que boo même temps bi ngay liggéey. Hmm. Euh, ay heure la heure bi boo paree di nga toog ku du toog amul. ku noppaloo ko nag yaa nga yaa nga àllaaxira hmm. waaw mais challenge bi ñu ko noonu système euh, ni ñu ko waxee ak ni ñu tontoo dafa wute parce que toog muy dox boobu dafa am ñoo xamante ne dañ leen ko cëralee ñi nga xamante ne nangu ñoo liggéey lu dul topp nit di ko tudd di ko tudd mu leen di tax xam nga dafa am loo xam ne Sénégal dafa am géwél wuy ma fi Sénégal nañu am ay aada dafa am ay ay am na ay aada suñu aada yooyu nag kenn mënu ko fi changer. Mhm. ku nekk yow gérer li nga war a gérer rek. boo waree may nit nga may ko boo mënul may nit nga téye sa xaalis. Mhm. maye si xol la nekk. mun nga am milliard te doo maye. mun nga am cent franc di maye. Mhm. yaa moom sa alal bu la neexee nga maye bu la neexee bul maye. waaye nag kenn du maye kenn du ñaan. waaw kenn mënu ko fi tere si réew mi. non mun fi jógee. waaw mënu fi jóge di mm-hmm. il faut nit ñi ñaan il faut nit ñi ñaan tey ne ñëpp nañ alal mënut a nekk il faut am na ñoo xam ne amuñu. dëgg la ku amul nag yow boo ko yéenee dimbali ko nga dimbali ko te yàlla tax boo ko yéenewul nga noppi. Mm-hmm. loolu mooy yoon. loolu mooy yoon. Ah. jërëjëf El Hadj bu baax. jërëjëf jërëjëf. doo ko si toog muy dox. Ah. <laughs> non non non Aliou ma turaay ma non kii laa doon waxtaanal waxtaan wi dafa dafa kii non non non xam nga concept toog muy dox benn waay ab jàngkat wala waxtaankat moo toog bés doon wane ne day toog muy dox baat gis nga nit message dafa am solo réew boo ci yëkkati kàddu da ko war a xool xoolaat ko parce que vocabulaire yi loolu da ciy bokk te bu ci bokkee baaxul dafa bokk ci liy ñàkkal jom nit ñi baaxul loolu noonu nit bu koy wax gis nga booy wax da nga war a xool li ngay wax surtout ko nekk conférencier di ko wax tey mi ngi nii ñu bëri nga koy jël bu ñu waxee ñu gis ci seen bopp ñoom waruñ ci gis seen bopp gis nga nit nit ki toog muy dox baaxul mais ñiy wax naan dañ toog muy dox est-ce que dañuy toog muy dox. mais lu waral loolu gis nañ président Diomaye indiwul benn géwél Sonko tamit ba tamit faaw ñu xool lan mooy géwél. géwél mooy kii kees daan géwél muy wax dëgg. gis nga aide à la presse bi ñuy jox journaliste yi. géwal lañ ko daan jox may gi ñuy may géwal loolu forme aide à la presse la mooy par exemple tey bu njëkk suñu réew tëgg daawul ñaan uude daawul ñaan ràbb daawul ñaan géwal sax daawul ñaan dañ ko daan may am na loo xam ne pour nga mënoon a gis président wala nga mënoon a gis buur am na loo daan warloo ak géwal yi waaw waaw loolu la woon ca jamono yi ma ne sëñ man li may wax xam naa ko wa leeral naa buur ba muy nekk buur comme ni président mel mën a jël aide à la ca démb buur bu daan ñëw la mu daan jox géwal loolu formu aide à la presse la waaw bu la neexee yow suñu culture yow nga jël tubaab bi dama ne la buur sëñ bi waaw bu la neex d'accord naa ci ñàkk d'accord gi nga ak man bu njëkk bu buur masaana taxaw daan may géwal parce que géwal dafa am taas bu mu daan def dafa daan denc mboor maanaam mbattit daf daan wax ci communication daf daan ñaax maanaam mi ngi mel ni Cheikh Tidiane Gomis ca euh, fële Coupe d'Afrique bi euh, Aline Cissé jëlee lan la wax Gomis on l'a fait parce que ñaax gi mu ko doon ñaax du woon géwal daf la daan wax lu la neex képp da daan wax da la daan wax dëgg nga ciy tege loolu nag mu daan def moo daan tax ñu génne ci euh, keesu nguur gi di ko jox li ñuy joxe ma ne ma ne defuma ma ne waaw non non non non bi sëñ bi sëñ bi bu may wax li may wax démb la mënoo fexe ba du ma ko wax bu la naqaree da ngay taxaw waxuma ko pour agresser la dama ko wax pour jël suñ culture la ca baaxoon ñu bañ ko def xas bu dee xew léegi tuddewuma ko loolu li ñuy mayee léegi nii di wax ku la ñàkkal jom wala ku la tag ku la tagg wala nangam géwal daawul ñàkk jom da daan wax dëgg loolu laa wax li may wax li may wax mboor la wa waaw non non non man waxuma loolu dama ne damay valoriser li nga xam ne moo taxoon mais mais mais sëñ bi boo bëggee da ngay taxaw jël micro fii ñu jàkkaarloo li may wax maa la gën a xam non non bu la parce que yaa ngi nii li may wax yaa ngi ko jëlee yaa ngi ko jëlee manière péjorative defe na ma ko wax waa mais kon aide à la presse bu ko kenn jëlati lu tax menuisier bi joxuñ ko aide à au menuisier. mais aide la presse daf ñu lew tamit. waaw waaw non daf leen lew bi tamit bi sëñ bi tey bisu baalu àq la waaw dañuy jàngale imam bi da waaraate di wax man li may wax nii lii du waaraate waaw non ba ta yow ci ñi complexe nga bokk jërëjëf voilà léegi fi may waxee du question bul ko jëlee d'une manière péjorative su gars yi di maye dafa am lu ñu daan joxe pour am loo xam ne nii dañ koy jox nit ki taas boo xam ne mënalu ko boppam parce que li muy liggéey moo amal solo nit ki ñu daan jël di ko décréter aide à la presse dama ne la boo ko contextualiser léegi loolu lay mel ku mu neex ak ku mu neexul maa ngi jégalu waaye noonu la deme voilà